thank you Merci de nous avoir suivis, amis internautes de Dendal TV. Assalamu alaikum, bonsoir. Comme vous le savez toujours, Dendal TV est dans le temps actuel de l'équipe que à travers Dendal TV. Alors, nous avons la loi l'Assemblée nationale. Nous avons dans le 94 voix acceptées. Nous avons la loi 48 voix contre. Si euh, total, nous euh, avons l'Assemblée nationale adopté na li nga xamanteni modi loi d'amnistie bi le président de la république du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall moko indi alors le président encore debout dafa la di du gouvernement am euh, dafa daal di changé également ki nga xamanteni modi premier ministre bi di Amadou Ba def ki nga xamanteni modi Sidiki Kaba à l'instant Sidiki Kaba moy le premier ministre du Sénégal Amadou Ba nak ginnaaw bi ko Macky Sall le premier ministre Dal ko euh, conseiller euh, diko ko daal di campagne l'élection li nga présidentielle 2024 pour Benno Bokk Yakar ñun ñep xam nañ Amadou Ba candidat bi Amadou Ba def na ben discours bu am euh, remercier le président de la République euh, monsieur Macky Sall mais également remercier Sénégalais remercier wa Benno Bokk Yakar alors ce nak li gëna a fele ci tribunal de Dakar le tribunal de Dakar prend feu tey à l'instant tribunal de Dakar dafa daal di euh, làq sapeur pompier mi ngi fa à l'instant journaliste ñep ñëpp ñu ngi fofu ñun TV dinañ leen indi li fa xew à temps réel bu ñu ci loolu tamit ñu ñëw ci Karim Wade mi nga xam ne euh, euh, am nañ certitude du bokk ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko également du bokk ci élection présidentielle 2024 mais nag waa Pastef ñu ngi ne oh, Sonko mooy Diomaye Sonko bu bokkul Diomaye mooy bokkute également Diomaye day daal di gagné li nga xamante ni moo di président euh, présidentielle 2024 yi mais waa Benno Bokk Yaakaar aussi am nañ yaakaar ni du Ba dina gagné élection yi di élection présidentielle 2024 bu ñu paree ci loolu ñu ñëw ci date présidentielle 2024 madame, date élection yi nga xamné à chaque fois dañ koy reporter conseil constitutionnel dafa Japon le 2 juin mais le président de la république du Sénégal mom dal néna euh, élection yi daf koy dal di tenir le 31 mars alors sénégalais sénégalaises nañ jàpp le 31 mars moy doon élection présidentielle 2024 toujours ici sur Dendal TV wa dendal TV dañ leen indi luy ton actualité du ñuy ko xamné ya ngi suivre à travers TV nga xamné vous n'êtes pas encore abonné ngeen dal di abonner aimer partager waa PASTEF nak ñu ngi ñaan le président de la république mu génné jomay ak Ousmane Sonko mais également ñu daal di mën concentrer li nga xamante modi ay campagne élection présidentielle 2024 ndax ginnaaw jappuna date bi le 31 décembre ki nga xamante modi moo Diaz maire de Dakar également demb waxna wax ju am solo fale ci assemblée nationale mais gis nañ député yi am na ñenn si ñoom dañoo di absenté won ñewu woon fale ci assemblée pour voter loi bi di loi d'amnistie toujours dañ leen indi luy tok actualité mais tay li mo gënoon fës ñu ñu leen di ñaan ngeul daal di abonné aimé partager suba inshallah ñu indi leen li gën a daal di fës si Sénégal en temps réel merci tonton Wagan merci à tous et à tous